loi bi loi bi loi bu baax la parce que mën nañ ne du loi politique loi technique la donc loi administrative la donc defee naa ne tey euh, président Macky Sall comme ni mu doon indi ay proposition de loi fii ci assemblée nationale ñu koy voté loi yooyu yëpp dafa delluwaat ci askan bi donc ndax tey xam nañ ne président Macky Sall Moi, président de la république moi, moi, décidé. le premier ministre mooy une instruction le gouvernement nag exécuté. exécuter defe a ne tey suppression du euh, poste premier ministre dafay président de la république est en contact direct avec les ministres ñu mën koy rendre compte parce que n'y avons pas attentes attente bi dafa bari ndax cinq ans yi nga a ne moo envers les jeunes envers les femmes envers le monde rural bëri na bëri goo tey lu ko dol tey ak li dal xelam mooy fexe ba supprimer poste boobu su ko defee mu nekk en mode fast track comme ni ñu koy waxee mën a gaawantu li nga xamante ne moom la yéene Sénégal damaa jàpp ne loi bi warul indi débat warul indi complication d'autant plus que réforme boo xamante ne ñëpp ciy gis seen bopp bu dee assemblée nationale tey defe naa ne am na euh, équilibre entre législatif bi ak exécutif bi ndax tay jii li nga xamantene tay moy motion de censure dootul doxati diggante exécutif ak législatif donc pouvoir bi nga xamantene ne président amon nako moy pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale defe naa ne loolu bu fekkonte ne njëriñam wala intérêt motax euh, loi bi mu indi ko kon defe naa ne du ci bolé donc prérogative boobu nga xamantene ne dissoudre référendum bi te bëri na ay points yu bari yo xamné président Macky Sall day wañi bopam di yok di dooleel ay institution donc ci référendum bi mën nañu jàpp point ben bo xamné ne dafa dooleel opposition bi moy euh, le statut du chef de l'opposition donc defé nané ne loolu bu ko waxé loolu ñom lañu ñu ci bi référendum itam gis ngeen que né président Macky Sall dafa wañi 5 ans dem dem 7 ans dem 5 ans loolu defé nané ne loolu ku ko xalat xam ne président xoolul boppam mais askan bi la kon je pense que tey li ñu fi voté lu am solo loo xam ne président moo fi nekk tey muy Macky Sall mais bu fi jógee ëllëg keneen kuy mën a ñëw nekk président de la république constitution bi may na la.